gars yi pare ngeen presse bi c'est bon. Ah, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu. ñoo ngi leen di nuyu. di nuyu amateur di nuyu réew mi di nuyu biti réew di nuyu ñi ñuy seetaan di am mbégte tey fekk si li nga xamante ni moom mooy guy gi. ak leen suuf gars yi coupé ak leen suuf. moo tax nag ñu ngi dem ci bés bu mag ñu ngi dem ci bés bu rëy le vingt février bu nekk ci arène nationale di dem ci guy gi ak ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug di leen xamal ni Reug Reug xamal président bi Reug Reug incha allah ñun ñëpp nañ fa daje comme ni ñu ko defee nii ci guy gi. waaye guy gi balaa ñu lay wax dara dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay seetaan d'abord. waaw d'abord bàyyi ba la dañ naan auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli jën tamit sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Asek borom ndigal. di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér di nuy sama xalifa général maam Cheikh Mati Yàlla yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana sama xalifa général Bab Dramé yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana Baye Assek yàlla na yàlla oofal yan ak bépp kilifa diine bu mu fekk ñi jiitu yàlla na yàlla yóbbu àjjana yàlla mun na ko yàlla yàlla def maa ngi nuyu sama yaay Waré Sarr bu baax comme ni ma koy defee di nuy sama grand frère soma homme de confiance sama homme de vie nas di nuyu famille Waré Sarr bi yëpp di nuyu sama grand mambay Paris sama benn booy Bira Bira a mu jaay bu guy gi Caama Adama Yaare Fall képp koo xam daal yaa ngi kër war a saar maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu tamit suma papa ak suma yaay nuyu sama xalifa général papa muy Modou nuyu suma rakk Babacar nuyu ñi xam ne ñoo nekk suma kër Bolo John Sena ak ñi xam ne vraiment Mara suma safoor ak ñi xam ne vraiment chaque jour ñu ñëw bokk di toog di waxtaan di jiital ci nuyoo bi suma grand frère suma papa suma lépp ah, Père Mansour di ko nuyu di bu baax soxnaam Zeyna di nuyu Marie Louise di nuyu jëkkëram Maurice sama pëlsoo bi Abu ganaa Lamine Italie Espagne moom nga xam ne day def fépp di ko ñaanal bu baax ak beneen Lamine bi ak Lamine Niass Faye Niass Omar Der Mounas ak Adjana Paulo ñu ngi koy bu baax ak booy ñoom Paulo yëpp ñoom Ali ñi xam ni vraiment ñoo nekk ci Paulo yëpp suma ma joxee Paulo rek nuyu naa ñëpp nuyu suma doom petit suma rak ñëpp rek nuyu ñi nga xam ni vraiment ñëpp ñoo toog di jàppale guy guddi ak bëccëg su ma limee damay juum koñ bi bàyyiwuma kenn guy gi di nuy waa dawal ko sareet yi waa pip pip ku ci mel ni demb Ama ak ñi mu ñoom baj seera nuyu ñëpp rek ñëpp xaar ñu fi nuyu ñëpp rek bay balla ñu dem ci question yi bay balla waaw lii dafa am solo dama bàyyi lépp ñu bàyyi lépp jàppale ma guddi ak bëccëg suba kon faaw ma nuyu leen di nuyu ñi nga xam ne tamit vraiment ñoo nekk eh, eh, eh, kii unis mama Yambu Abdou Medina Laye Ndiaye mama Mati Bo sama korsu Ndoye Diouf Abdou Medina Amital bàyyi ma kenn duyu suma benn gànnaaw faral kenn la ci man jibisi la di ko nuyu baax di nuyu Awa Séeréem di nuyu di nuyu ak sëñ Saaliw ak Malick mi nga xam ne ni mooy goro jibi si la depuis Suisse ak jarwaat jibi si yëpp ñu ko eh, ñu dem trois tours bi léegi guy gi maa ngi ñaanal guy gi guy gi ñu ngi nuyu ñëpp rek waaye guy gi dañ la dégg nga ne Reug Reug dafa dof lan moo tax nga ne Reug Reug dafa dof maa ngi ñaanal suma papa Mor Faram yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana bàyyi bàlla combat bi trois ans ba mu taxee ba tey man waa ak école Lille Mor Faram yëpp président équipe Paris si la jiliwaat secrétaire trésorier xaw ma secrétaire ñu ngi koy nuyu Jili Wade Maawo Maawo Ngay Loum Gandi eh, Kirista ñu ngi nuyu bu baax njaago bu tuub la di waa nuyu ñi xam ne sama mbokk mbëri fi ñëw ku ci mel ni Alioune Seye Marle suma rak ñoom Jackson ñoom Thiaw ñoom eh, ñoom Ama Sène Senior noonu du ma leen nuyu ci lañ bokk mbaytin diwaan am lycée su ma limee damay juum ñi fi ñëw ñëpp bàyyi ma kenn tokoro ah bàyyi ma kenn ngeen comprendre su ma limee damay juum waa kili Mor Faram bàyyi ma kenn suma xol laa ko ñoom Ngala bàyyi ma kenn ñoom Mor Faram su ma la nee tey su ma la nee tey suma xol dafa sedd sedd ñëpp laa gis. bàyyi wàll man su ma droit erreur aw ma droit def erreur nga ma am ñëpp ma bëgg man. wallahi ki may bëreel sax dafa ma bëgg man aw ma noonu. xaw ma taxaw ma noonu ñëpp laa yéene jàmm rek rek dama koy daan dimanche si kàddu yàlla lëngu ko conseil. lan moo tax nga ne dafa dof. lan moo tax nga ne dafa dof. maa ngi nuyu sa xarit. kan. Kéba Kanté. nit ku baax. Kéba Kanté yéen presse bi yëpp xam ngeen ni Kéba Kanté ku baax la. doomu nday pël. papaam Cheikh Kanté maa ay millions yu bële la débloqué envoyé ma ko. tey tontu woo sama question. maa ngi koy nuyu Cheikh Kanté Kéba Kanté doomu Kéba Kanté maa lay nuyu. ba tontu woo sama question. lu tax nga ni Reug Reug dafa dof. xam nga lu tax ma la Reug Reug dafa dof. dof fekk dof mu mel ni guy ñëpp di ko teg. mbër booy bu ñu mën mu jëlee ci kàddu Seydina Mohamed. defal la bagage fere na la loola ma tax jël combat ma wàcc senegal def cent trente cinq kilos bay jugo bay jug cent quarante kilo gars yi na ma def ëpp di ko wàññi ba am cent vingt cinq kon bëgg naa combat bi waaye rëg-rëg nee na du may benn mag dara ndax rëg-rëg seetaan nga combat am ak Elton rëg seetaan nga combat am ak bi mu ñëw ci avec frappe ba léegi amul kenn ku ko freiné lan moo tax nga jël rek. waaye yow mag gi day magu dara mag gi du magu dara dañuy wax rek mag gi billaahi du magu dara mag gi du magu dara bu ñëwee ba ci kanam am du magu dara bala ñu avancé nag ki ki waral lii tey comme li ma ko waxaat ci rek muy suma ganaa lii lu jaan euh, defe naa ni ñun dinañ am benn spécial boo xam ni dinañ ko def teere Amadou Bari muy liiru jaan ñëpp xam am lum lum lum représenté géejawaay yow mën ngaa gis liiru di xuloo ci beneen dëkk loolu géejawaay mën ngaa gis liiru di jàppal tànk benn dëkk bu dul géejawaay amul kon defe naa ne ñun jot nañu delloo ko njukkal ñun mbëri suñ nee monument géejawaay damuy dëgg ci ñun kon jot nañu delloo ko njukkal dinaa ci dox dinaa ci wax incha allah lan la xanaa da nga ñemewul rëg rëg dama la seetaan nga combat am ak. Baye Balla lamb jox xam ne trois ans ñun ñëpp kenn ku ne di rafetlu mel ni métti bu desee quatre jours daa jëre waxat lu ci des c'est présenter jëf rek moo des incha allah. wax leen. ok. waaw. waaw. bu bu njëkkee woon bu njëkkee bu njëkkee woon si man rek du du du du continuer dafa njëkkee woon si man nag. waaye mbaal du ñëw géejawaay ci géej ga la jëm mbaal wut si wul dara géejawaay kuy mbaal da mbaal jën ñun du ñuy jën ay doomu aadama lañ. ba boobu yàggatul yéen ñëpp yéen ngi yor seen bët di xëpp di xool. waaw mais guy gi ki nga xamante ne mooy rëgg la. dañ dégg micro moom lu mu wax. Hmm. si wàllum xeex bi. Uh-huh. mu ni waaw. mu ni biir làmb ak biti làmb moo dàq xeex looy tontu si loolu. bu doon dañoo jiitu ci mbedd man ak moom Kémara nekk fa dara nekk fa nu ma neex laa koy def. waaye nag léegi réseaux sociaux <coughs> dañoo bari ba ku jug rek. lu la neex wax waaye yàggatul dimanche soreetul ñi ñi ñi ni woon ñëpp dañ may duma yaakaar naa <laughs> yaakaar naa ko de mais dama dégg nga ni waaw Léone 2012 waaw moom nga di si combat bi lu waral nga wax bii moo raw ke may dajal nawlawu ma respecté wu ma tegul ne nit laa te bu xamoon maay kan dina jël dissociation bu yàgg bu xamoon maay kan dina jël kiyam waaw Fadel waaw. Fadel waaw Fadel. ah waaw waaw. waaw. waaw. loolu moom. ba tax suñu kenn ku ne da ciy wax. mais man yooyu dama ci xam naa sama bopp man su ma demoon ba mënuma affronter Reug Reug yëpp ma samay supporters yëpp ma koñ bii ma dëkk koñ bi ma dëkk kuy noyee làmb fi nga bokk fii te bala nga ko xam incha allah dimanche nga ñëw boo ñëwee di nga gis lu yéeme lu leer nag laa lay wax kon yëpp leen bay ñëw di dem di leen nax naan leen lii ak lii trois ans laa def di jàng xeex lu ma am xeex moom ma ko gënal man dama man a xeex mais wane wu ma ko xam nga kañ lañ ko wanee nee na mënu ma xeex na maam mu ñëw ci man su maamee ñëw ci man ñu lëngu ko muñ bi. Fadel toog nañ di seetaan match Sénégal man ak yow mu ni dafa am lu def ci loxo yi man ko yàlla na génn ci combat bi man li ma def sama loxo du ma ni na génn ci combat bi xam nga lu may ñaan. mu mu déclenché sama xeex su ko defee ay mbokkam lëng ko ñu ñibbi. yow jox ko favori bàyyi nga. man sama combat yi ma jox favori yëpp yàlla na demee noonu waaye nag sunu papa Mbaye Gueye daa ko am solo. ak Boy Bambara mu ni guy gi kenn mënu koo pronostiquer papa papa Mbaye Gueye yàlla na ko yóbbu àjjana mu ni guy gi kenn mënu koo pronix booy bambara tamit maag mbay juuf ñuy bëree mu ni màgg bëri la ma bëree daan mu ni guy gi bay ñëw bàyyi ko ci làmb kenn mënu koo pronix sama papa faram damay entraîné ba mu woo ma ñëw mu man du ma nekkal ci te kooku il est champion d'Afrique kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax te dañ koy bëriwaale. dama gis mu def benn genre bataille psychologique. seen diggante ak c'est très bonne question c'est très bonne question. attends la parole. déglu leen question. Père Mbow. Père Mbow posé nga lu solo. dama def keroog sorti jooy sama xol moo tooy. man kenn kenn kenn xam ne doggule naa sax néew. jooyu ma sama papa Mor Fara mii man ak doomam ñoo ko sang. ma dugal ko ci bàmmeel. mujjee sama tànk rocc ko te jooyu ma. am na lu def ci man. kon xamal bu ma jooyee keroog am na lu tax. mais la ma jooy moom yàlla bu mu ko dal. lan nga jooy no xaar rek yàlla moom loolu sama gannaaw nee na ma liiru jaan mii bu ci waxaate du ma ci wax man man damaa dégg ndigal du ma ci wax mais dama ne li nga wax laa lay tontu yow da nga ni sama diggante ak Balla Gaye Balla Gaye su ma diggante ak moom su amee benn loo xam ne sama xol jàppal naa yàlla bu ma daan combat bi yàlla bu ma daan xam nga combat bi mooy suma àdduna ci làmb yàlla bu ma daan combat bi barke alxuraanu karim nekk naa foo ma nekkul moom ak Sa Thiès muy werante ci làmb ji bay nar a jàppante kooku dëgg la di ma wax ay qualité yoo xam ne yegg suul ci man ne nii nga koy daane fii boo duggee sa nekk tifli boo xëyee ñu ne tifli nga neel benn beneen bi ma wax ne am na ñu jàppee seen bopp kilifa. mu bëgg a dox sama digganteeg géejewaay ak digganteeg Balla Gaye def ba tey sociologique naan. psychologique naan naan euh, euh, nekk géejewaay naan mbër yi dañ xeex. kon su nee mbër mi ñëpp a dem ci Balla Gaye. neel waa benn ma génn leeral ko ma ne ko waxuma mbër su ma nee mbër yàlla na yow yàlla nga ma daan. tuddoo mbër sax tudduma mbër. déedéet mais ma jooy maa ko xam. kilifa nga wax Balla Gaye def na jooy jooyati jooyati jooyati. dëgg la mais man la tax ma jooy maa xam. dëgg mais jooy kenn ku ne ko moom. mais lu tax doo jooy. moom ma teel a jooy naan ma jooy yi gëmu ko. mais loolu kenn def naan jooy yi gëm li ma dal yéene ma ko yàlla bu mu ko dal. ba ma jooy yàlla bu mu ko dal. man du ma am bataas di woote wàllu nee na may woote wàllu. ñaata combat laa fi bëri wéet. billaahi ma dem stade yàlla may ma ndam kon dama man soti Omari Ndak laa sama maam diineem deret ak i la ko jëndee man sëtam la bis bu mu ruuxee ba ba ba ba ma tàng. que bugg a frère yu bari. boo ma tuur combat bi dafa am ku la digoon cinq millions la boo ko jële boobu combat bi dafa am ku la diggoon cinq millions. non dama ne. non dafa am tànk léegi. waaw waaw léegi joxal liir mu jox waaw ah, joxal liir mu jox boo jëlee combat bi naa la jox cinq millions. man maa ci wax jox naa la cinq millions. may ma tuuti ma la maam Abba la. maa leen nuyu yëpp ci wax. comprendre nga moom champion la. na fi lu ne ndaanaan la képp fi ay réeru jàmbur ba tey combat bi dafa métti gis nga tey rëgg na su pourfait guy gi du bëreeg moom ndax guy gi moo ko raw si lambu li guy gi fayeeku rek rek fayeekoo ko comprendre nga ñuy wax combat bi di ko dox comprendre nga léegi après jubóowu la promoteur bi mu am lu dox seen diggante ak moom muy 5 millions dox seen diggante ak moom Malick Gakou ne ko jëlal combat bi naa la jox 5 millions te Malick Gakou kilifa la biir Guédiawaye te nit da ngay sa kaddu te nit su fekkee da ngaa bëgg ñu naw la ñu respecté la da ngay sàmm sa kaddu 5 millions yooyu mu ko digoon na ko ko jox combat bi dafa yàgg dafa metti te lamb dafa metti li ma koy wax na ko jox 5 millions yi na ko jox bis bu ko joxul nag baax na ko jox laa mu ne bu ne ne li moom doomu Guédiawaye la daa bëgg dara Guédiawaye na ko jox cinq millions yi da ko làmb guy gi ñu ñëw guy gi ñu ñëw ci benn question ñu ñëw ci benn boo gisee lii waxee ni boo gisee lii waxee nii dara ëmb ko ci combat bi parce que wéet naa ci trop wéet naa ci trop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 woo nañ ma ne ma ma dem samay nit defe naa ñëpp gis nañ ko dem naa samay nit ñëpp mais kenn laa xam ne ku ñuy wax si laa te ndeysaan mi ngi dëkk ba Yoff Sylla maire Yoff seeri na bu Diagne borom naa TV moom laa gisagum koo xam ne nii vraiment jàpp na ci combat bi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 non woote bi. woote bi. dañ koy njëkkee. non woote bi. woote bi. woote bi dañ koy njëkkee. fi nga xam ni moom fi dëkk. muy Asegna. Alba. Daaro. xam nga képp ku nekk as yëmbal bi jaxaay jibo marsan bees diisoo arlem njaareem teere jaxaay njaboot gi notaire Serigne Mbic golfu gunaas bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn wa gépp waa golfu waa golfu ñu bëgg dem o oh, jël ma en direct lii ma wax la golf ñu bëgg a dem Balla Gaye 2 na leen jox ay billets jox ay car ñu bëgg a dem laa de te wallaahi dina ko def ñu bëgg a dem Balla ne leen jox ay billets. sa frère jox leen ay gaz suma frère suma mag suma lépp. voilà kenn ku ne xam dafa nekk ci tawat. dafa nekk ci tawat mënul ñëw ci open de presse bi. bala ngeen naan lu gis ñu ko. la de guerre il le bouge déggante léegi. dafa bougé mais ku gis Alioune Seye. gis Marley. ah gis gis Jackson. gis Thiaw gis ñoom bugaan mais yow loolu kon jël su nga naan diwlu dara ñëwul saytaane yi ak ñi xamul ñun géeyewaay benn lay suñu bokk ndey ak baay xulawunu ñaawunu dafa am ñoo xam ne ay saytaane la dañuy toog ci tuuti di jéem a jax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay lu ñu yóotu jot ko kii nii dimanche incha allah yàlla may ndam la ñoom ñëpp ko yéene jàmm